waaw sama xol naxari na sama xol naxari na lool ndax papa ju baaxoon na papa ju ñàkki ñaan ko xamante ni ku bëgg doom waaw at àdduna bi yëpp sax dañuy yaakaar ni moom mu jur ndax ni ma mel ak moom moom Ousmane bokk ndey ak baay tey Sénégal ñàkk na àdduna ñàkk nañ mais mujjee wax ak moom yàggul dara mu ne ma saa yoo bëggee répété na ñëw fii ci kër gi nga répété eh, yal na ko yàlla yërëm waaw na xale la eh, waaye eh, tamit dégg ay kàddu il faut mu il faut mu demee ndax lu fees turu mais da ngay dëgërlu te ñaanal ko suñu borom xare ko àjjana te am na si moom yaakaar ndax seede yi rafet na trop te ñi mu bàyyi ginnaaw aussi ngeen gën a góorgóorluwaat xamante ne lii la suñu borom rek ko sañ. jërëjëf waaw suñu borom rek moo ko sañ kenn sañu ko. jërëjëf gën a góorgóorlu bu baax. jërëjëf man Ndiaye kàddu ma lay mujjee laaj lan la suñu papa Thione Seck mujjee waxtaan ak yéen ci si ndaw ñi. diine ak lislaam. diine rek ak lislaam.